Cheikh Seck ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay. Euh, yaa yore kàddu intersyndical liggéeykatu euh, mairie bu Kaolack. oui. voilà mairie bu Kaolack jamono ji euh, coow bëri na fa lool tey nag liggéeykat yi di ñaawlu rek anam bi nga xam ne seen maire di Serigne Mboup moom la ko yore soo koy tënk rek lan moo xew seen diggante yéen liggéeykatu mairie ba ak maire bi di Serigne Mboup. waaw li may wax rek mooy en tant que mouvement syndical damay en tant que en tant que porte-parole donc da euh, de l'intersyndical damay wax ne lépp lu ñu def ñun dañ ko teg ci li ñu yoon may mu mingoo ak suñ statut donc ci loolu la ñuy dox euh, ci biir loolu aussi comme yoon may nañu ko duñ nangu benn yoon wàcc ko parce que suñuy droit la duñ nangu benn yoon ñàkk ko jëfee aussi ci biir loolu lépp loo xam ne nag suñuy droit la euh, fu mën di nekk danañ ko laaj mais xam nañ niñ koy laaje mm-hmm. loolu moo lool ñu bëggoon def sitting la lundi passé parce que en réalité débordement yi mi ngi commencé foofu alors ñu jàpp ne sitting moom bokk na ci li gën a élémentaire ci droit yi nga xam ne travailleur am na ko alors ku nekk xam na ne amoon nañ le le le le le vingt passé benn sitting bi ñu bëggoon a organiser bi bi maire yógee ne dañoo bëgg a def sitting man dama jàppoon ne ci kilifa li gënoon doo déggee ne sa njaboot ñi ngi préparé pour dem sitting te yoon may leen ko nga approché leen waxtaan ak ñoom hmm. mais malheureusement moom bras de fer la ko def dem ci rajo yi dem ci télévision yi dem ci site yëpp wóor ne li li ma xew daal mooy euh, kii moom du fa am sitting du am moom ci ci ci maire bi te jaral na ma seen bakkan yi ñoom hmm. voilà ces termes mu ne journaliste yi la reposé mu ne ko man maa ko wax seen bakkan yi ñoom te dinaa leen indil ay xaj parce que ay xaj xaj nga leen di indil. Mm. donc yooyu ñu foogoon ne daf ko doon wax rek pour la forme. Mm-hmm. mais bi ñu war a dem ci sitting bi ci veille bi à trois heures du matin. mu indi fa ay xaj indi ay nervi yi. Mm-hmm. Euh, fermer toutes les portes. le lendemain bi nit ñi xëyee war a ñëw liggéey euh, ci pour sitting parce que sitting bi c'était prévu. Mm-hmm. pour le pour neuf heures. donc huit heures donc war nañu xëy pour nekk dans les bureaux ba ñu def sitting à notre grande surprise à huit heures moins toog toutes les portes ñu tëj ko buntu yëpp bàyyiwuñ benn fermé yëpp yemuñ ci fu ci nekk nag ñu teg fa ay vigile ay nervi armée de coupe de gourdin ñu jox leen ko ay pompe tout ça loolu ak boole ko xaj yi mu indi ci biir kuuru mairie bi ne kenn du dugg mhm. alors travailleur nag boo ko buggee tere lieu de travail ne ko doogu dugg mooy da nga koy rey d'abord am na ci ñoo xam ne donc ay xale lañ ne danañ dugg bi ñu duggee rek lañ ko agressé kenn ki ba dañ ko interne à l'hôpital ba sonal ko ba na lool mais Dieu merci donc problème yooyu moo amoon mais laa le lendemain euh, euh, sitting boobu ñu am benn mot d'ordre de grève de quatre-vingt-seize heures pour l'intersyndicale alors mu nekkoon quatre-vingt-seize heures c'était le mardi passé mercredi jeudi et vendredi donc quatre jours yooyu hmm. alors bi ñu gisee ne quatre jours yooyu jeex na ñu xam ne lundi kon ni ki démb dañoo war a liggéey si en tant que responsable ma anticiper pour éviter des confrontation mm-hmm. ma bind le préfet du département ne ko yëg naa maire seen organisation yi ñuy def ak waxtaan yi ñuy def réunir nañ ba recruter nañ ay maire bi yooyu yëpp ma expliquer ko mm-hmm. ne su fekkee lundi changement amul confrontation mën na fa am te confrontation bu ba amee na jur lu nekk mm-hmm. léegi pour éviter ça te comme yow yaa fi nekk pour l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens ma informé wàlla la pour lundi xamal na leen lundi liggéeykat yëpp dañoo war a regagner seen i place dañoo war a liggéey parce que grève bi jeex na mhm. suñu amaatee beneen moo doon nag ñu joxe war ko donc j'ai informé le préfet alors le ci bi aussi ma defaat beneen ojo et informé tous les travailleurs ne leen demain c'est lundi nous devons aller au travail kenn ku si nekk na nga regagner sa service le lendemain ñu xëy ni dem démb à notre grande surprise bi ñu eggee fekk fa dispositif yu ëpp yi ñu fa fekkoon mu jël ay nervi yi pointé leen ci porte yëpp fermer porte yëpp alors biñ ñëwee ñu ne dañuy benn porte ngeen di jaare mais da ngeen di émarger pointé. Mhm. ñu ne ñan ñooy def émargement yi ñan ñooy def pointage yi. Mhm. ñu ne ñuy ñii ñu fekk la ñuy ay nervi mais sa lieu de travail nervi di la defal pointage di la defal émargement. Mhm. ça pose problème. kon loolu moo tax ngeen bañ pointage boobu. mais pointage yow xam nga ne loolu duñ ko defee noonu. travailleur amul benn travailleur je dis bien et je bien moom en tant que responsable. bu am sañ-sañu bañ ne du ma émarger. duñ ko nangul kenn. Mhm. amul benn sañ-sañ benn liggéeykat bu am sañ-sañ ne du ma point duñ ma point amuloo ko droit bi. parce que loolu droit wul sa employeur la. da nga koy da nangu loolu. mais nag moo ko war a def. li mbaa mee ko war a def mais du ñu indi un corps étranger di ko ko def loo dernier bi donc loolu indi problème beneen bi comme dañu nekkoon ci grève quatre jours yooyu il a profité de l'occasion changé serrure porte service yëpp génnee bagage kii les affaires personnelles bagage yu ñu fa nekkoon yëpp te nekk ci grève kon ba jamono ah. kenn kenn mënul ñëw liggéey ci mairie ba. mënoo dugg ci bureau mu remplacer leen par qui. Mhm. par le personnel de la chambre de commerce bi mu jiite. Mhm. par le personnel du cœur de ville bi mu jiite. Mhm. ak euh, les militants de son mouvement. ñooñu actuellement boo dugg ñëwee ci mairie bu Kaolack ñoo nekk dans tous les services ñuy manipuler les documents administratifs alors que amul dara lu leen lié avec la commune. d'accord voilà les préoccupations des travailleurs. bi xale yi ne dañuy def confrontation dañ leen di song ñoo leen ëpp mais mën na jur lu nekk parce que ñi ils sont armés te ñun armés yooyu mën na jur nekk te aussi ma jàpp ne c'est pas responsable mhm. ma ne leen bàyyi leen ma dem gis préfet je suis allé voir le préfet defal ko la situation mu promettre ñu dana waxtaan ak ñoom nañu mais demee vous reprenez mhm. vous rejoindrez le vos services muy tey tey bi ñu ñëwaatee ñu fekkaat fa le même dispositif dara changé wul ci. kon ba léegi liggéeyoo leen. ba léegi dara changé wul ca mais à notre grande surprise le secrétaire général municipal oo ma ne ma léegi on est d' accord ci li ngeen wax léegi dañuy danañ jël affaire yi ñu jox ko DRH bi moom da ngeen may leen ko kon moom mu ñëw ma ne ko amul benn problème ñu woo DRH bi ne kon moom na dem pour personnel bi ñëw émarger pointé fekkee ak lu ñu def ñu def ko ñoom ñu dugg ci biir j'ai demandé à tous les travailleurs ñu def masse ñëw di dugg si pour euh, pour euh, accepter li secrétaire général wax à notre bi ñu egsee ba ci porte bi rek nervi yi génn jeté wu ci ko travailleur ba agressé ñaar bu ko layte loolu loolu moom ni mu amee cœur de ville mm-hmm. ak service privé yi euh, kii entreprise yi mu jaar loolu la jàpp ne mooy mairie di noot nit ñi mm-hmm. di humilier nit ñi mm-hmm. raje nit ñi licencier nit ñi sanctionner nit ñi am na ci ñoo xam ne sax dañu di emprisonné topp leen utiliser des moyens financiers colossaux donc pour loolu la jàpp ne dana jàll di jàll ci mairie bi la mairie c'est pas une entreprise privée c'est une institution. d'accord euh, foo leen foo leen toll ci euh, xeex bi Cheikh ndax euh, mi ngi avancé am na ay acquis. waaw ñun personnellement. Mhm. bi loolu amee donc il y avait l'intervention de la police parce que nit ñi dañ leen song nag boobu mu nekkoon confrontation boo xam ne su fekkoon ne police nekkul ba tey da nga dégg Kaolack loo mës dégg da nga ko dégg alors aussitôt bi loolu amee nag man personnellement delluwaat naa ci préfet fekkuñ ko fa nag. mais on a trouvé son adjoint euh, ñu échanger ak moom wax ko li xew euh, parce que comme démb ne ko li préfet waxoon démb euh, le comme fekk na fi une situation boo xam toujours c'est le même c'est la même donc ñu ñëwaat pour defalaa ko compte rendu ñu defal compte rendu bi adjoint bi mu ne dana remonter l'information et nous sommes retournés bi ñu retourné deux heures de temps après euh, le commissaire central m'a appelé pour me rejoindre leen à la préfecture mm-hmm. delluwaat waxtaan nañ wax nañ leen ne leen pour jàmm am corps étranger yooyu nekk ci biir mairie bi sëriñ bu memul mairie bu Kaolack nit ñi soo sont recrutés légalement ñuy exercer seen activité légalement mhm. kon duñ nangu kenn kenn koo xam ne yow tu n'es pas recruté am dara lu lien lié ak la commune nga ñëw foofu parce que militant nga parce que chambre de commerce ne donc ñu d'accord ci loolu mhm. waxtaan nañ ci le préfet demandé ñu ak le commissaire ne naa wax euh, les travailleurs ñu delluwaat seen kër ñibbi toog te déglu donc ñoom dañuy waxtaan. Mhm. danañ ñëwaat luñ arrêté ñu soog a trouvé buñ trouvé une solution. Mhm. ñu ne ñu dem liggéey ci mhm. jàmm. Euh, Serigne moom jamono ji euh, pare na ngir waxtaan ak yéen ndax ànd ngeen ci loolu. Mm, pare bi loolu yow yaa ma ko wax su fekkee pare na parce que li ñuy wax pare du pare. moment bi mu wax ne pare na. ci la jël ay mesures sanctionné ay nit. moment bi muy wax ne pare na ci lay jël ay nitam ñu dem ci rajo yi télévision yi di saaga nit di jël sama man sama euh, photo ak samay vidéo di ko partagé di la saaga guddi ak bëccëg mhm. moment boobu ci lay menacé nit ñi d'affectation d'intimidation donc ñun bañuy waxtaan. d'accord mais waxtaan dafay am ay préalable. dëgg la liggéeykat bu nekk bu fekkee ne da am nga ay soxla ay tawat ba yëkkati ko jëmale ko ci sa kilifa. mooy damaa bëgg ñun ñaar ñu waxtaan ci lii. Hmm. kon loolu wax ko wax ju yàqu la ñi koy wax ñëpp ne ñun bëgg ñoo war hmm. mais suñu waxtaan ñun préavis de grève motif yi ñu ci wax avancement grade man nañ ko waxta duñ ci waxta waxtaan ak mee bien sûr automatique mën ko wax duñ ci waxtaan ak maire prise en charge médicale mën nañ ko waxta duñ ñu naan ñu naan préavis. justement loolu ñuy wax dañuy wax wax ju yàqu. dëgg la moom mooy focc xelu nit ñi. Hmm. moom moo jàppoon ne mairie comme entreprise yi mu jiite woon la cest lu ma neex def lu ma neex wax lu ma neex teg nit ñi mhm. du loolu nous sommes disposés te euh, mhm. dañoo am obligation ñun dañoo am obligation muy moom muy ñun ci travailler ensemble vivre ensemble pour le développement de Kaolack d'accord tey boo doon euh, def rek bilan euh, ba mu yegsee ci maire ba léegi benn at ak lu tuuti rek la naka ngay defee bilan moom bi nooy jàngatee bilan bilan bu méttee métti parce que d'abord pour que jàmm mën am résultat mën a am stabilité dafa war a am ci kër gi mais sëriñ daaw bi mu ñëwee ba léegi jàmm amul ci kër gi su ngeen dégloo sax maa ngi déglu benn journaliste par ni bi ko koy posé question ne ko mais liñ constaté à Dakar ne ko daaw ba ren yaa ngi ci ay détails ak sa personnel ci personnel boo xam ne boo demee dans tous les services yi nga xam ne nekk na Kaolack muy perception muy santé muy trésor ils occupent les premières places parce que personnel bu avou dévoué la bu compétent bu efficace mais nga ñëw ba léegi moom benn préoccupation te wax na ko il a ouvertement dans une radio locale nee na bi may ñëw suma euh, ñi ma àndaloon dañ ne ma woon da ngaa waroon a dàq ñëpp jël say nit ma ne woon non je l'ai regretté mais fi mu ne nag bañatuma ci daal donc idée boobu mu am tant que dañul ci moom mairie bi noonu noonu mënu fi dàq kenn mënu fi génnee kenn donc loolu moo indi instabilité bi am d'abord ci kër gi ba nga xam ne liggéeykat yi bu ñuy ñëw benn climat de terreur benn climat de da ngay tiit ba nga xam ne yow yaakaar nga ne tey boo ñëwee ba ba bala ngaa jóge fii danañ la rey wala ñu agressé wala bala ngaa génn danañ la troxal wala danañ la dàq. climat boobu léegi mooy ràññee ci biir mairie bu Kaolack. d'accord donc un bilan négatif. ci côté boobu. Mhm. beneen bi aussi. Mhm. Euh, question ñu gis dox. Mhm, ñu doxalin boo xam ne aussi ñu daf ñu xaw a jaaxal parce que li xamoon mooy alalu commune li le dépositaire est seul dépositaire des fonds de la commune c'est le Trésor la perception municipale mhm. ñu gis ay versement yoo xam ne ñu ngi koy def ailleurs lu bokkee wut ak perception municipale mhm. ay euh, mhm. ak ay fonds yoo xam ne mi ngi koy alloué cœur de ville yooyu yëpp ñun liñ ki ci war a interpellé ni ko en l'occurrence en premier lieu le receveur percepteur accord euh, laaj bu mujj bi rek tey euh, intersyndical bi ëmb liggéeykat collectivités territoriales yi euh, ñoom ñu ngi wëroon rek di sàkku ñu yokk seen i payoor yéen seen côté ndax li ni mel am na. sant yàlla parce que jot na circulaire bi envoyé nañu ko di vers les coups de le ministre de des des collectivités locales donc signé na la circulaire. Mm. bi nga xam ne tey demandé na maire yëpp yëpp yëpp ci Sénégal ñu aligner les travailleurs donc augmentation yi ñu dugal ko pour le mois prochain le reste muy arrière yi donc certaines les les maires euh, l'intersyndicale ak l'État ñoom danañ toog xool waxtaanee ko pour que arrière yooyu ñu xool nan nañ koy fayee ak bu fekkee état koy fay nu mu koy fayee ak bu leen di dimbale nan la leen dimbale donc loolu Vraiment, nous disons bravo et nous félicitons l'intersyndicale national ci mhm. combat seen combativité mhm. ak seen sacrifice ak effort yi ñu def bañ am résultat yi donc ñu ngi gërëm mhm. ci ki ci jiitu di Sidya Ndiaye ñoom vraiment ak tous ses collaborateurs ñu ngi leen di remercier di leen féliciter yow it euh, Rewmi FM mu ngi lay sant di la gërëm merci merci euh, di fàttali rek yaa yore kàddu liggéeykatu mairie bu Kaolack liggéeykatu mairie bu Kaolack liggéeykatu